baada ausu billahi mina seytaani rajimi rabbi ausu bika min hamazaati sayaatiin wa ausu bika rabbi an yaxduruun barki borom Tuuba tawir lana xumrana saahil lana badana wa xablana rusda wa tawfiha yàllaaw mbok julit mbok talibé rawat na mbok internet ni baye xel rawat na ñi xam ñi top site bi ñuy wax GR Info TV tay ji ñew leen fi ci medina ri 5 keur Serigne Serigne mustapha mbay borom tawfiq euh, ci bis bu mag bu tedd bi nga xam ni mu ngi koy defal borom jam ak jamono euh, Serigne cheikhuna Cheikh Salihu mbake ñu ñewon fi tay ji nak fekk fi mbok talibé yi muy bis bo xamanteni bis bu mag la bis bo xamé bo fi dikké rek xam ni sëñ bi rek leen fi dundu waye bis bo xamanteni ni ñi ngi ni tok ba fees fi ma sha Allah di jang alquranu karim jàng xasida salaatu ala bi ak lépp loo waaye man rek si lu baax ñu ngi koy def mu mel ni ñu ngi ni toog ak kilifa gi muy Serigne Moustapha Mbaye borom tawfeex mel ni kii tamit jëwriñ la si kër gi ah, Serigne Alla Dia ñu ngi koy jaar bu baax a baax a baax a baax mel ni moo yor kàddu sëñ bi kon Serigne Alla Dia lay jox nga daal di nuyoo bu ko defee ñu daal di wéyee suñu laaj. waaw kon dañ koy jox Serigne Cheikh Touré xidma mu ubbi jotaay bi ci xasida yi rek incha allah ok Serigne Cheikh bismillah صل على ساله وهو المصلح أصادق صدق صلاة تصلح صل على ساله وهو المصلح أصادق صدق صلاة تصلح قصيدتي فاخر خسائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام سان إلهي بالمناجات وابدا أغنى يدي عن هاتي دل علي الهلما والأولياء من لا يسال قوتي وخوليا خسيدتي فاخت خسائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناسعا واساه الملك ما توجه نصار الله لي بلا إله إلا الله sëriñ saaliwu laay jooy xol baa ngi koy jooy cër yaa ngi koy jooy sun waaja dem na tuubaa nga koy jooy xel ma ngay jooy njuru na ngay jooy sun waaja dem na makka nga koy jooy madinatuy jooy tuba ngi koy jooy sun waaja dem na Serigne Saliou Mbacké yàlla suñu borom yokk ay ci tass ci barkem barkep Serigne Touba Cheikh Mountakha fi lol te wer barkep jërëjëf macha allah ci kàddu yu am solo yoy nga xamni ni jëwriñ ji yëkkati nako fi muy xasida ak wolofal yoo xam si ni gaay yu baax ñoko bind kon bu ko defé dañ jox suñu Abdou Salam mu daal di yëkkati ay bayt xasida wala shukrullah wala wala wolofal. alhamdulilah jërëjëfati Serigne sari barkib Cheikh Ahmadou bam bahadou rasoul fasiyene jariñu fasiyene jariñu barkib sa mo Cheikh wa wajhi saytaana wal makaida لغير نهو لا تسغني كائدا وجي سيطان والمكايدا لغير نهو لا تسغني كائدا ولتكفني مفسدة وسدا ولا تسغني فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمادا وسكنات وعيات يا أحمدا وإذ الليل من جنا من جنابه يا من له زكر يا زائناب وإذ الليل من جنا من جنابه يا من له ذكري زائدنا به واجر علي بركات دون در ولسواك فكل ما يدر يا سعارف الخلية خبل نادما يا من كفاه بنبي سادما يا سارفا خذ لي قبل نادما يا من كفاني بنبي سادما كما جهادي وبيوي ماديا جعلت خير مساه راديا سل بتسليم على النبي والآل وصحبه وسلم مخفي يا من من الناس ما عزمتا تشاء خير الورى وسنه عزمتا يا من يا من saaliw borom njurul borom njooka jàmbaar ja na ne ñuy tëju jooy baay saal sëriñ saaliw yuuxu yuuxu ba far yi sax noo ngi lay jooy sëriñ saaliw jàmbaar ja wàcc na faalun li ma yuridu yàlla yàlla jëf jëf na ba yóbbu sang ba ci sëriñ saaliw ñu des fi nun ku nuy defal ay baay saal li nit a juddi la jooy sëriñ saaliw ko daal ba xaalam baay ginnaaw yi sax noo ngi lay jooy noo ngi jooy Serigne Saliou jàmbaar ja wàcc naay tawfiq sant Serigne Saliou yéen maa leen nu sant di Serigne Saliou borom tawfiq yi delloo njukkal laa ku santul ab ja bu fàttewul ku ko moy buy sant dolli koy la ka war sëriñ bi yaa nu defal fasaa ridwaana yaa nu ko tiflul busra ñu tàggoog lori dunya tawfiixu na tawfiixay sëriñ saaliw jàm bu fàttewul ko fal wallaay doole ma ngay fare kaw ku fàtte la la fal nag folli ku yomb la tey ya fàttewoo ba ngay sant tey sëriñ mu la may jaajëf jaaraama yaa jar di way Serigne Saliou ku sopp Serigne Saliou loxo ci kaw nu màggal borom maxwa baay saayal tibal te may nu sayer ma de du jeex kéemaanu yàlla mooy Serigne Saliou waltuf bina wa xawina wa kullana wa hablana rabbina barkib Serigne Saliou ñu ngi ba ah masala amna solo lol lol lol lol kon nak ñoko deggando Serigne Abdou Salam ndaysan ci khassida yu am solo yoy wala fali amna solo lol macha bu ko defé kon ñu jox borom tawfiq ah jëwrin ah si àlla bu ko defé ñu jox ko kàddu gi mu daal fi fiy jotale ay kàddu ñu dogo jox jeurin ji. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اعدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المحدوب عليهم ولا الضالين آمين بركب سيرين سالو mbokk yi tedd yi نيوغي taalibe yi ñoo ngi Médina Rue 5 ci kanam sunu jëwrin suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ Moustapha Mbaye moom sëriñ Saliou borom ci bis bi nga xam ne da ciy delloo njukkal Serigne Saliou di koy sant ak mbooleem taaliba yi mu àndal yépp bis bi nag day jëmmal taxawaay bi waaye Cheikh Moustapha bis bu nekk guddi ak bëccëg mi ngi ci liggéeyal Serigne Saliou di wane Serigne saaliw kem kattanam ndax mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom jox ko seen bopp li muy njëkk a def ak ñoom mooy at mu jot foo xel ko mu wootee woote bu mën a doon dina def ay biis taxaw xelkom dugg ci tool yi di bàcc di góob ànd ak ñoom ba xelkom jeex mu ajra oto delsi bu delsee fii daayira yëpp liggéeyal Serigne Saliou guddi ak bëccëg suba ak ngoon tey nag bis bi di bisub sant te ku sant ñu dolli la ba ñu xëyee suba ba léegi jàng nañ fi limu mu alxuraan xasida yaa ngi daw ba léegi pareegut jànkat yi yu bari war nañ fee teew waaye njëkk nañ ko ci ay xéewal ci fajar ndékki ka fekk ay laax ak lu nekk am na fi ci suba góor yàlla yi xéewlu añ naka noonu ñu ngi dëgg dëgmal reer waaye nag li ko yitteel dëgg-dëgg mooy day wax ne bis bi nañ fexe ba nit ñi ñëpp xewlu waaye nag nañ fexe ba weerti Serigne Saliou ay xéewal yoo xam ne dina xam ne doon nañ ko sant te mooy salaatu ala nabi alquran tudd yàlla sell gu sëkk bam xam ne taalibeem yi ñi nga koy delloo jukkal tey ñi ngi koy si aw yiw loolu moo ci gën a ñor sëriñ bi muy koo xam ne nag fajkatu aajo la boo xam ne ñi ko mos xam nañ ko ngir ko sax ci sëñ Saliou di ko liggéeyal guddi ak bëccëg loo mënut mëntaam sëriñ Saliou woo toll noonu nun ñi nga xam ne xam nañ ko te mos ko fas noo yéene mukk ci àdduna bu geesoo dunu gis bara mënoo woo nu wuy si ko kon noo ngi woo mbokk taalibe yi ne leen jëmm day mënta wax maa ngi nii waaye sañ na ñu leen wax ne leen ab tibbukaay a ngi xaw ma sax nuñ ko mën a waxee waaye taw féex a ngi nii làquwaay a ngi nii boo xam ne ku bëgg sa aajo faju foo ko dégg ñëwul Cheikh Moustapha mbay moom Serigne mboole mbooleem ñu mu àndal benn joxoñ rek leen wan te mooy Serigne Saliou ak bëccëg bariwaa na ndaw ñoo xam ne seeni kilifa demoon nañ ba ñàkk ñoom yaakaar mu tegaat leen ci yoon wan leen lislaam dund la leen Serigne Saliou ba kër ga ñekk buñ fa gënut nit gënu leen kon mi Medina di ko ñaanal aw fanam gudd lim bëgg liggéeyal Serigne Saliou day doo ko day doo tàmbali tey nag bis la boo xam ne sëriñ bi junjoon nañu nun ñëpp nanu am na lu nëbb woon waaye tey la war a feeñ nun ñëpp nan ko teewee ba mu yeewee nu am ci tawféexe àdduna ak alaaxira na ko war na a feeñ kon euh, dañuy jox waaw sëriñ Saaliw tibbal waayam te bu kaay leen ñëpp ñëw daw si leen te seede ay mbiram Cheikh Moustapha nital na tey ridwaanullaahi yaaram bokkum gërëm sa ngir ma gën di xel di law daw si leen nu góob njariñ laa nge Cheikh Moustapha tibal te jox ñu yaay ki nu yaay yërmande yàlla mooy sëriñ saaliw baddi la naa gaay sëriñ saaliw ah jaam ñi yeeku leen ñu feeñal la na bu woon ci démb tey la war a feeñ Cheikh mu waay leerug Serigne Saliw ndaw ñaa ngi reeroon te xamunu sini waajur ya ñàkk lool te amunu Cheikh Moussa te teewa ma def ci njub ak leer ngir jëmi Seexu Saaliw Sëriñ Saaliw mi ku ko am looy wuteeti xaw ma ko man xanaa dof ni bàyyi saal ma saytu mboolem lu nuy wute Sëriñ Saaliw ku am lu muy wuteeti xaw ma xanaa dog li sëriñ saaliw moo saytu mbooleem lu nuy wuti watuf bi naa wa xawina wa kullana ciy sëriñ saaliw wa hablana xusnal xitaami rabbana wa salliyan ala nabi wa sallimi cheikh moustapha wax di bi fajal ajatu kulli muslim barki sëriñ saaliw Ah, jerejeuf jerejeuf jerejeuf jerejeuf lani waxate kon ma sha allah serigne Abdou Salam kaddu yi amna solo lol waye jëwriñ ji kaddu yi tamit leral yi amna solo lol kon bu ko defé dañuy jox serigne mustapha mbay borom tawfiq mu def nuyo bu ko defé ñu wéyal suñu laaj ak euh, mom ci bis ak yu demé ni yoy ak li ci aju yépp bismillah serigne mustapha mbay borom bismillah khadimi a'udhu billahi bismillah inna waliyallah. وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله نوعي نيو مكي تالي بي في تيويب نيو سنو تلفزيون بي نجا كارلون دلن نيو تدين نيانا سنو بروم يوكو لين تباركي لين تخمني وخدق يالا وقت وحينك أدن بيب نيو لين باي خل مولم كو بغا سيطان انفرماشن يو أم سولو كي لبرك من سيطاني سن تلفزيون بي xam ne mi ngi fi jàll ci na mu war a jàlle te yéen a ngi koy segg ca gën ngaa rafet nu seggin te yéen a ngi jàlle itam lu am njariñ te loolu rek moom solo kon noo ngi ñaan sëriñ bi dool leen feex te rafet naa njort ne ba leen fi bàyyi ko da ngeen am tawféex waaw ndax lii ni ko sëñ Abdou Salaam waxee daa am lu nëbb woon te war a feeñ loolu nag ku bokk ci ñu koy feeñal ala kulli xel ne danga feeñ kenn mënu laa tee feeñ moo tax moo tax xanaa xuma ne sëñ Abdou Salaam ak yéen sëñ Cheikh yéen jànkat yi tey moom da ngeen may fay ndax biir na ma ne baas bii moom boo leen fa duggee da ko toj waaye nag maanaam ku ci feeñ moom ba yëkkati ci génn xasida boo fi bàyyi ko da feeñ ndax lu nëbbu woon war a feeñ lu nëbbu woon a feeñ nag ginnaaw bi ñu santee sunu mbokk yi cawlu jotaay bi yëpp maa ngi koy jéggalu muy kilifa yii fi toog ak sa ak euh, mbokki taalibe yii yëpp fi toog dañuy bañ a lim di juum si Abdou Salaam yi wàcce léegi nga xam ne moom ni nga ko waxee xëy na du du lu ñuy wax ci rajo waaye li ñu boole dafa baatine muy sëriñ Saliou ba lu bare bare feeñ ci ba lu bare bare xew ci euh, suñu cheikh mii ak suñ taala mbokki taaliba yëpp suñu Abdoulaye mi moo waxtaan liggéey bi suñ maam góor ak suñ papa mbokk yi ak euh, soxna Ami Diouf mii nga xam te nii daa jóge ba bëgg suñ say loolu di ko dund nga xam ne fi lay yendu te fi lay fanaane jóge ba géeju ba ànd ak njabootam gépp ñëw ci màggal ñëw ci bis bi waaw ak it jàmbaar yi suñu seel bal, soxna Fatou Ball di jambari xelkom nga xamne soxna sel te bëgg seigne bi te di dund joge fa so ba leg ànd ak njabootam ànd ak ñëppam ci bis bi waye nak ma ngi beral seigne cheikh sama tiant nak ko xamne day kenn ci man muy soxna Fatou mi soxna Fatou mbay loolu mom manam fi ñewé sax da bax ndax ki say bu ma demee Sacré-Cœur ñuy nit ñi di ma laaj fu ma demoon Sacré-Cœur kii fekk Sacré-Cœur kii xam nga Cheikh Abdou Salam bëgg naa nga may ko fa am am kii baax lool bëgg ma lool teraanga junne la may defal waaw ni ma ko gisee nii daan na la ñibbiwaat moo tax ma bëgg koo fañ waaw bëgg ma lool saa yi bu ma fa nee mboolem luy xeeti teraanga dina ko def ngir jëmmi sëriñ bi defal na ko ngir jëmmi sëriñ bi ci alalam ci ci ci mbooleem lu lu baax ci sëriñ rek dafa def kon mang koy sant bax baax di ko di leen ko seddal soxna mi ak soxna fat ni len ko seddal bax ba a baax di ko seddal mbokk talibé di nuyu sama jambar yi taxaw suñu Cheikh suñu Basiiru ñoom bok ci jëwriñu liggéey bi ak suñu allah ak mbokk yëpp rek di amane mbekté bu bax ci léral lu gatt rek li waral jassay bi li waral bis bi bis bi nak dara waral ko lu ak kent ta ak cant yàlla ñu ko digal mag mu toll ne da daa mel ak cant ñor nako ndax ci léegi ñaar yoon bi mu ko digal yonent yàlla daawuda alayhi salaam di wax ne ihmalu ala daawuda sukkuran waxal leen ibaadiya sakoor daa mel ne maanaam ci ni ma ko mën a firee ku ne hey yow daawuda santal ak sa mbooloo ndax sama jaam ñi kat ñu néew ma ci cant cantu jëf kon yàlla bëgg na cantu jëf moo tax kenn du sëriñ Saliou moom dafa teel a comprendre li xew moo tax mu woo na ci cantu jëf ba sëriñ Moussa Ka di wax naan Cheikh Moustapha fondement sëriñ Fallou matal na Cheikh Abdoulaye yokku na sant leen Serigne Saliou boobu xamuñu woon ndax ndaw ñi danañ dajaloo di sant Serigne Saliou boo demee ci dëkku village yi dëkku village yi boo fa demee bu njëkk ba bu événement masaana jot ay tàndi bi rek ay sawar ay soir la la la xale yi daan def waaye diir bi Serigne Saliou sunu waaj ñëwee ba léegi boo leem Serigne Abdoulaye mi nga xam waxtaankat la ak suñu àll mii maanaam dañuy tourner rek te la ko waral mooy ay cant Serigne Saliou lu ci ëpp moom la kon soppi na soirée ay cant. ndax daa xam ne ak cant promotion la boo xam ne ci la ndaw ñu mën a jaar ba mën a jariñu at mi mu defal na ci bonus boo xam te nii mënoo ko am ci lenn dul ak cant ndax boo demee ci ahlul tasawuf seen maqamatul yaqin yooyu ñu dajale ginnaaw a shukru a shukru da nekk ci maqaama bi gën a kawe ma arida foofu la Cheikh Ibrahima boroom borom daaru muxti cer na foofu la nekkoon kon ak cant amul lu ko féete kaw bisu màggalu Tuubaa li muy rëy rëy rëy sëriñ bi ak cant mag mu toll ni Sëñ Tuubaa nga xam ne lépp mooma balee sa bëri kenn du suñ Tuubaa maa ngi leen seddal kenn du Sëñ Tuubaa gi lu yëngu mooma lu am mooma lu sotti mooma lu jag borom tubaa la kookoy nga xam te nii cin bu neexee Sëñ Tuubaa ko sawal kër lu muy rëg-rëg rek borom Tuubaa la moo defal ñëpp lépp te kenn kenn defalu ko dara ci ak cant la woote ndimbal ci sayet ci lañ mën a wax ndax 33 ans exil après exil amuñ dégguñu fenn fu sëñ bi te te mbooleem xeeti jaamu yàlla yëpp suñ tubaa jaamoo yàlla du ko kenn jaamoowut dara ci aadama mu njëkk mujj ma du ginne du malaak du kenn du ko yàlla bind koo xam ne ni sëriñ bi jaamoo suñu borom moom jaamoo na ko si yàlla amul kon kooku noppi na ci lépp waaw jënn jëmm la sax ju jaamu jënn jëmm ci <laughs> waaw kon kon loolu bu ko defee bu ko defee dañuy fexe ba maanaam loolu mooy ak cant kon bu bu wootee ci màggalu Touba ne na nga ma ci sant la yàlla daa dem ba mag ñi bëgg koo indiwaat di wax màggal gàmm euh, tabaski waat ak yooyu mu bañ ñu ñu ñu dugg ci bitaa moo tax mu indi baatu màggal waaye màggal loo ko waral ak cant la kon ak cant de rëy na de. sant na ngeen ma sant yàlla koo xam ne sa koo xam ne sa mbég sama mbég la na ngeen may sant la yàlla daa ba pare nag daal koy defarlu moo tax nga xam ne suñu al ma di man bi ayati fi asabil ayati waaw ah, damay bañ a dugg ay biir di xuus ak yooyu moo bokkoo tënk ci lu gàtt kon ak cant dara fiitu ko kaw ci àddina ak cant mooy lépp cant googu nag la ñu sëriñ Saliou woo moom ma xam ak cant te bëgg ñu dimbali ak cant moo nu jàng lan ak cant te yàlla tawféexal nañu ba defal nañ ko ci bisam bi moo ne woon cant day rendi la tudd deret nee na ci ak sant yàlla sëriñ Saliou leen na nga ko togg ñam yu bari te neex te nga dënal la ko te bul ci am xaaj ak seen nee na bu guddi gaa na nga taxaw wax la yàlla defal wammaa bi ni'mati rabbika fahadis kon loolu la ci jublu kon te loolu lépp defal nañ ko sëriñ Saliou ginnaaw ba ñu xëyee jàng nañ fi alxuraan ak i xasida mooy ni ma ko waxee woon ne loolu moo ma gën a ñor ci bis bi ndax zahir la ak baatin dañ koy sant gi zahir di ko sant ci baatin di ko sant ci iman wa islam wa ihsan iman xam dal nañ bi ñu xëyee iman ci xol lay nek waaye duñu yem ci am di ci al iman dañ ko islam mo dañ wax l'islam des koy wax duñu yem ci islam dañ koy ihsan ndax ihsan moy ak rafetal mo war <laughs> zahir togg neex togg neex lañ fi togg togg nañ fi togg ku daa daa soxna daa mel togg nañ ne yàquñu dépense bi waaye noonu la ko suñu saal yi bëgge nag noonu la ko si saal yi bëgge asalaam ñam nga ko tawarkalla si Modou yaa daa ma kaw na xam naa ba pare yow tufe bi ngeen ngeen kii kon li suñu saal bëggoon def nañ ko naan nañ lu sedd naan nañ lépp lu lu lu luy xeeti bernde defal nañ ko Serigne ñu noo ngi koy seede di wax ne yu beeg tiyaa ba bi na ko suñu borom nangu fab lépp joxal na ko Serigne Saliou ñun lañ ci amaan nañ jëlal lépp ak lépp ñëpp joxal ko addi yi Serigne Saliou te ñaan suñu borom fayal nu Maulana Serigne Saliou yal nu yàlla fayal Serigne Saliou ku gore war nga ko sant lam na won rusna ma jamonent nit mu xam sama tour yi faatu dem sawara loolu kep dañ ak tiant sank ki doon jébul léegi waaw daa ñëw euh, ki doon ki doon ki doon ki ki ki doon jaayante léegi Serigne Serigne Cheikh man mën na na ci indi sédé nga xam ne ni ko nettalee sa sama yaram doon daw kon loolu dafa dema dema dema dema dem ba tay dafa woné bop woné go kenn xamul ay mbiram kon dañuy gattal waxtani fofu ndax euh, cérémonie ndax bis bi day bëgg a té te yu bari kilifa yaa ngi ak yoy té amna ñu a ñëw siyaar bu ko défé la des mom dana ko eggal ci guddi ndax tay mom ku yakamti ba ñib mom bu la nettalee jàngi sa bop dina sona ndax amna Cheikh mi mom bis bu ci bi mom mom mom dina dina dina ko wacc ak cheikh nga waaw kon Cheikh Abdou Lahad ak waaw mbokki taalibe yi kon nag noo ngi siyaare ñëpp suñu xaar ñu ngi siyaare ñëpp di di di wax ne bis bi daal bisub sant la bisub fàttaliku la bisub ñaanal la Mawlaana Seyxinaa Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké soxlu wunoo wane kenn du suñ du maam du bàyyi du kenn ñun suñu yitteeg suñu vision suñu bëgg mooy wane Serigne Saliou wallahi la asinta maa ko seetal ñëpp maanaam kii bu am nañu bari bu ma fekkee place am mën nañu ma am nañu bari bu àndoon moom fekk fekkaan ma nii ma toogee dana xanaa kii du moom ñun soxla wuñu lu dul ak taalibe soxla wuñu lu dul liggéeyal sëriñ bi sol ay carax dem fee ak tëdd fii la ñaawale lii seex mi xam naa ci dara am na bis na masan fekk ma sëñ bi yow xam moo yor a jullee fee ca kii ba nanga makki nanga mu ne ko jullee ci mbedd mi ak jullee fii laa yemale am seex wax naa la ko loolu lañ ci jublu mooy mooy nu xam ne nun amuñu jénn yitte ju dul wane sëriñ Saliou kennal sëriñ Touba ci jëmi ci jëmi sëriñ Saliou ji liggéeyal sëriñ Touba ci jëmi wallaay la asim te te li ñu wax lu gëm la te yàlla yàlla day day na ci seede kon kon ñoo noo ngi sàkku itam àddina bépp ñaanal ñu ndax Serigne Béthio daa am mission bu mu bu mu doon liggéeyal Serigne Saliou te mission boobu kat euh, du lu lépp la ñuy wax waaye waaye waaye biir nañu ne kat am na lu ñu ko ci war a yeggaleel donte am na njaboot waaye waaye mbirum yàlla du lu ñu donn fi mu toll nii ay ak njabootam maanaam barke ba leen yor lim liggéeyal Serigne Saliou barke ba leen topp de. waaye garaat baag mbóot maag siru baag leer de sëriñ Saliou ko moom mbirum yàlla la da koy téye xool ko soob mu defal la ko amin min barke sëriñ Tuubaa kon nag dafa am mission bu nu war a liggéeyal sëriñ Saliou Mbacke kon noo ngi sax ñëpp ñaanal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah